sur Prestige TV à partir de 23h, disponible aussi sur Prestige TV YouTube. Amis auditeurs de la 95.5, votre émission sans détour tous les dimanches à partir de 11h avec votre fidèle serviteur Isidore Alexandre Sen, qui traite l'actualité politique de la semaine. À travers différents invités, Isidore Alexandre Sen va essayer de décortiquer l'actualité politique de la semaine, l'actualité locale, mais aussi l'actualité nationale à travers votre émission Sans détour tous les dimanches à partir de 11h. Et vous pouvez suivre le replay euh, sur euh, Prestige TV à partir de 23h, disponible aussi sur Prestige TV YouTube. mbokki auditeur ak euh, ñi nga xam ñom ñoy suivre tous les supports de prestige du groupe prestige à travers suñu émission bi nga xam mom moy sans détour amul nebo ci 95.5 FM ñu am mbégte tay di dalal ci dimanche bi ki nga xam modi Cheikh Ahmed Tidiane ndoy nek responsable politique à Thiès notamment dans la commune de Thiès Nord nek tamit le président du mouvement pour le renouveau démocratique liguey sarew réew euh, Cheikh Ahmed Tidiane ndoy ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission sans détour amul la boo fii ci Prestige FM. maaleykum salam Isidore maa ngi lay nuyu. à travers euh, plateau sans détour amul na boo di nuyu Sénégal yépp di nuyu tous les téléspectateurs euh, internautes. auditeurs auditeurs de Prestige TV Prestige FM di ñaan euh, waxtaan bi ñu fas am ak yow ci émission bi. lépp tukkee ci njariñ jëm ci population. très bien. voilà xana ñu njëkkee ko rek jégalu ci euh, numéro bi la passé nga xamné dañu def li nga xamné modi rediffusion way nekkuloon ci suñu ciobaré bop ñu ci bu baax baax ñi nga suivre à travers euh, groupe euh, Prestige ni mako waxé légui Cheikh mom moy président du mouvement pour le renouveau démocratique liggéey sa réew di mouvement bo xamné ne yàggu ko sanc ndax Cheikh ku ko xam xamé woon na ci li nga xamné nak modi Benno Bokk yakar mu dem ba taxawal mouvement am am na feneen fi nga xam ne fa la bëgg a jëm ak mouvement yooyu yëpp dinañ ci ñëw ci li nga xam ne moo di émission bi waaye nag euh, li ñu njëkkee mooy actualité oblige muy loo xam ne tiis la ci réew mi jamono ji euh, fan yëpp ñu ngi koy waxtaanee muy li ñuy wax émigration irrégulière li ci mujje modi bateau bi nga xamné ne gal euh, gi nga xamné Boy euh, ci département bu tiwawon ni ki le 10 juillet 2023 gal bi ñukoy wër diko wër ba ben bato espagnol gis ko ci waaxu Cap-Vert muy lu ñu bari ñak ci sen bakan am ay rescapés yi nga xamné ñu ngi leen di fajj ca Cap-Vert Cheikh situation bi ñu mel ban sentiment nga ci am situation bu déplorable di jalé Sénégal Eh, di jale aussi sama bop ndax eh, yalla def na bateau bi njëkkoon a suux tëngéej mm-hmm. am naa ci mbokk ah ci suma néegu ndey à ah, ceew euh tout récemment aussi bateau bi don te force de l'ordre yi ñëwon di def intervention mu am altercation ak jeune yi ki ci génn aduna mbeya fall ki jur yaayam ak suma papa ñoo bokk nday ak kon su suma suma jarbaat direct moo ci génn àdduna tout récemment ak su ma bokkal ci suma néegu ndey mu doon na situation bu mu doon situation bu regrettable ce qui s'est passé à Fass Boye quand tu vois l'intervention yi nga xame ni seen télé bi ñu ngi dem di ko fa def ak yeneen support de communication yi da ngay gis ni metti trop mais première chose euh, bi may déplorer mooy depuis que ñuy waxaat euh, phénomène immigration clandestine ñëw na Euh, la position du ministre de la Jeunesse est affichée. Très honnêtement, on ne l'a jamais entendu parler mhm. de, ce phénomène. Mhm. La position du président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal est affichée. Mhm. Et c'est regrettable qu'en pleine période Bunchineke, euh, le, Premier ministre se permet de convoquer les 14 CRJ, les 14 présidents de conseils régionaux de jeunesse à des fins politiques à la primature. je pense que s'il avait une bonne politique de jeunesse. à travers les démembrements et les corps constitués de l'État chargés de cela je pense que ni duñ ne immigration clandestine dina am mais lu bëree bëri dina wàññeeku. mais ndax li jërul woon li ñuy wax deuil national parce que ñi ci ñi ci ah. ñàkk seen bakkan ay dizaines et des dizaines la. ah bien sûr bien sûr ça mérite un deuil national et c'est regrettable maa ngi gis ci reportage bi d'ailleurs demain ñoom ils vont faire euh, je pense à Fass Boye une funéraille mhm. collective mhm. Euh, je pense que ce serait même risqué pour les autorités ñu dem fa teg seen tànk ah, ah c'est très risqué parce que euh, mënoon nañu jéem donte nag immigration clandestine pour man amul dara lu ko war a expliquer. bon xaw ma ndax am na risque wala amul risque mais li ma gis ci terrain bi à face, boy parce que euh, avant-hier j'étais là-bas. Mhm. de 8 heures à 17h, heures mais la ma fa gis c'est c'est trop tendu même journaliste yi sax pour ñu am interview benn instant metti woon na. parce que euh, ndaw yi bëggatuñu woon sax gis li nga xam ne moo di presse bi ndax dañoo jàpp ne dañ leen seetaan ba mbir mi ñëw fii. nekkul ne nag euh, dañoo mere journaliste yi mais peut-être autorité lañ mere. En tout cas, connaissant le courage de l'Ebou, ce serait trop risqué pour les autorités. ñu fay dem. nañu gën a xool ñu gën dalal famille nous gën a dalal askan bi euh, soog fa dem. ndax euh, je pense que ni le cri de cœur des populations de Fass boy ñëpp dégg nañ ko nak mhm. dégg nañ ko. Mhm. ba tey ñu xale yi teeri Cap Vert. Mhm. metti na mais euh, toujours est-il que ñun ñëpp ay ndaw lañ Isidore te ñu ngi Sénégal gëm ni war nañ fi mën a tekkee Sénégal amul ci kum amul ci kum neex wala ku muy metti ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal bi ñuy dund. Mm-hmm. mais aussi la pression sociale. absolument et aussi d'une part la complicité des parents. parce que da nga ciy gis parents yi euh, bëri yoo xam ne avant ñuy àgg ci responsabilité parents yi mm. par rapport à cette euh, situation mm. euh, sànq dama la dégg ngay nakarlu taxawaayu ministère de la jeunesse ministère de la jeunesse ban responsabilité la ci am non xam nga tey bu fekkee ni dafa am ministère boo xamee ni dañ ko jagleel ndaw ñi ce dernier a des programmes Moi, je me dis aujourd'hui que ni Thiès s'il y avait un bon programme bi nga xam ni le DAC de Jobas mi ngi fi ñaata hectare de suuf jëli ji ay Karim Goudia bi ñu démissionné France ñëw tey DAC boobu mënuñu ni bañ ko lancé ba léegi exploitation mm-hmm. dak la boo xamee ni tey mënoon na jël dix mille jeunes Thiessois nga jël tey bu fekkoon les dak Itato CFA mm-hmm. Kër Momar Sarr mm-hmm. dox na ni mu waroon doxe xale yi di ko gis mm-hmm. ñuy dundal réew mi parce que sax bokk na ci li Ousmane Sonko wax ni bu doon am programme bu muy reprendre dina doon les dak gën gën ko defaraat am programme bu baax la waaw non programme bu baax la mais je pense euh, bi ñu yàlla jagleel moom il passe tout son temps à faire de la politique que dans les réseaux sociaux et tout ça mais liñ ko politique de la jeunesse bi échec là, total ah oui le premier ministre nak lan mo ci responsabilité ah mais le ci responsabilité c'est aujourd'hui qui le premier ministre incarne la politique gouvernementale mhm. je pense que y a certains phénomènes pour les résoudre il faut prendre le taureau par les cornes mhm. ma xool des programmes concrets parce que beaucoup de jeunes sont frustrés xeex contre état bi ni ko président Macky Sall waxee bu yàggul mais jeunes yi seen i jarbaar lañu seen i doom lañu. nit mënul xëy xëy xëy retourné wu comme ça contre ses parents ci ay kilifaam. c'est parce que li war a ñëw ci ñoom réellement moom moo ñëwul. tey soo jëlee les financements yi nga xamee ni dañu koy dañu koy jagleel ndaw ñi. ku bokkul ci formation politique yi wala nga jege leen doo ko am. c'est écœurant c'est frustrant. beneen bi mooy mécanisme yi ñu teg muy ay DER ak ANPEJ ak entre autres mais booy dañuy déposé ba dee dañuy déposé ba dee après benn sélection à l'amiable moom mooy am yooyu yëpp moom moo ko waral parce que suivi bi ci war a am amu ci soo fekkee da nga jël fu mel ni Thiès mu nekk quinze communes mhm. nga ne leen demee huit heures dem leen ngeen déposer ji CEREPS mhm. booy bu ñu xëyee fajar day mel ni recrutement mais sauf que sauf que nag Cheikh euh, lolu euh, peut-être responsabilité bobu côté état bi la kessé mais le le secteur privé yow politicien nga mais entrepreneur nga yeen tamit ci sen wal lan ngeen fi def. non parce que jeunes yoy ngeen meuna dimbali état bi pour mu contenir ces jeunes là am li ñuy fi ñuy liggéeyee mën a yóbbu kër dimbali sen wayjur dimbali sen bop mais jangat bi soriwul fii ñu nekk nii ci studio bi ñu nekk un jeune moko def tek ko di entreprendre <laughs> mais lan la ko état jàppale bobu ba légui tey état lépp lu mu ko lu mu ko waroon mën a jàppalee sax lu ndaw tey mu dugg ci TNT bi depuis combien de temps il court là-dessus tey bu fekkoon ni moom tey indi na programme sax mu waroon am ay rectificatif war nañ ko mën a boole ay experts yoo xam ne dañ ko naan nii ak nii ak nii nga koy defee pour mën a dugg ci bouquet bi waaw loolu moom sa copain am na ci responsabilité nekkoon na fi ministre euh, Yankhoba Diattara nekk na fi ba dem Doumbouya daw na ci ba dugg TNT non je donne juste je je donne mhm. pour wax la ni euh, problème yooyu dañu koy néewal mais tay, si on voyait à il y a combien de jeunes entrepreneurs ici mais que ces entrepreneurs ils se regroupent autour d'un collectif se regroupent autour d'un collectif ku ci nekk ñu xool nan la ko état mën ne parce que entrepreneur boobu day par contre li nga vous ne c'est euh, l'expertise locale bi dañuy dem ba nit dañuy y a combien d'entrepreneurs jeunes yoo xamee ni ils ont préféré après jaay am am ils sont des gens qui sont en contact permanent avec la population qui sont avec les jeunes. Mhm. donc ces derniers l'état a l'obligation mhm. non seulement de les regrouper de les encadrer de les former de les soutenir aussi afin qu'ils puissent aider l'état dans sa politique de euh, jeunesse. responsabilité politique mais responsabilité familiale tout ce phénomène immigration irrégulière parce que li xew Fass Boye ak fenen nekul ne parents yi yëguñu xalé yi biñu dem peut-être euh, ñu bëri yëguñu leen mais amna ñu xamné yegg nañu sen dom biñu dem amna na ñenn ñoo xam ne sax ñooy jox sen dom xaliss ñu jël mbëkk mi ngir dem Europe loolu tamit responsabilité bu parents yi est-ce que waratuñoo xoolaat seen bopp euh, ci ci ci côté bobu Moi j'ai vu un parent qui dit que mom moo fayal doomam bu am fukki at. xale bu am fukki at mais kooku jàng la war a def kooku amul lenn loo ko war a teg lu tax xale bi war a def ci boppam leneen lu dul jàng parce que aussi. y a beaucoup kooku kooku xam nga kooku xam nga fuite de responsabilité la parent bi def mais beneen bi mooy la pression social gis nga nit ñi nañu yaraat doomu aadama yi seen njaboot yi ci doylu xam ni aussi wërsëg mbiru yàlla la. Isidore mën a yow mën nañ bokk ndey ak bàyyi nga nekk caatu kër gi. mais yàlla dogal wërsëgu waxuma kër gi mais wërsëgu famille bi yëpp yow yaa ko yor wërsëgu xeet bi yaa ko yor comprendre nga wala nga gis sa waajur nekk ak waajuru keneen waajuru Isidore yóbbu Isidore Màkka doomu Isidore yóbbu nga nga ne ah doo doomu diw bii li mu def. ah loolu de la ñu xamoon Sénégal vraiment. kenn kenn mooy liggéey ci biir kër gi mais kenn du xam kan moo liggéey wala kan liggéey. kan moo liggéeyul léegi nag problème yooyu bokk na ci li nga xam ni moo tënk ndaw ñu ndaw ñu bëree bëri. te man vraiment Europe bi je di def man wax dëgg yàlla Europe fi mu nekk nii. damaa gisatu lu fa am. Ah, am ñu leen doy. <laughs> hier man maa ngi koy wax euh, sama benn xarit bu ma àndal Sali. Hmm. ma ne ko mais tu sais que ni Sali gii tubaab yi fi nekk ñoo gën a sonn. Hmm. mu ne ma loolu dafa répercuté wu ci économie dëkk bi. Hmm. pour dire que ni euh, jaru ko quoi jaru ko réew mi war nañ ko mën defar ñun tey bu fekkee ni doomu Sénégal yëpp dee nañ ci géej gi. mais attends tey suñu exploitation pétrole bi ak gaz bii nii. Mm-hmm. <laughs> à la limite donc il va falloir qu'on revienne à de meilleurs sentiments mm-hmm. que nous xam aussi aussi euh, Sénégal donc nous avons l'obligation de rester mm-hmm. mais aussi parce que aujourd'hui les pêcheurs ont perdu un lourd tribut liñ ci ce qui veut dire qu'ils n'ont plus espoir dans la mer. amatuñu alternative. amatuñu amatuñu alternative wax nañ bateau étranger yi. ñëw nañu euh, pied géej gi. Euh, amuñu kenn ku leen ciy dimbali moo tax ñenn On a nañu euh, émigration bi mooy. alternative bi je ne me dis pas que mais aujourd'hui l'acte 3 des licences de pêche. on mhm. ko war mettre en suspense. arrêté mais bu je dara n'y nañ ñetti licence dañ ko war arrêter. Mhm. tous ces contrats doivent être résiliés. Mhm. gars yi top les acteurs de la pêche et puis aussi gis nga Isidore tant que bàyyi ñu di tëju ci suñuy bureau di réfléchir pour nit ñi hmm. duñu dem terrain bi il faut aller vers le terrain et parler directement aux acteurs gars yi dañuy toog seeni bureau hmm. bëgg a xam lan moo xaw ca waaxi Kayaar hmm. ca waaxi Gétt Ndar ca waaxi Tëngéej ca waaxi Jiwaalo te demoo rencontrer ak acteurs yi mais beneen aspect bi aussi les acteurs de la pêche et autres parce que man xam naa ci bu baax a baax. Mhm. seen structures yi. Mhm. ñi nga xam ne dañ leen jiital. Mhm. nañuy sóor ñu nekk si ginnaaw. waa Conipass ak ñooñu. waa Conipass waa passe affaire yooyu bon suñ jëlee salut de passage. parce que mareyeurs yi moom xam naa ci. ci seen biir laa yaroo. xam nga ko am ay mbokki mool am ay mbokki mareyeur moom. mareyeur yi ñoom ci seen biir laa yaroo. ñooñu aussi bu ñuy dem di représenter ndaw li nekk marché Sam wala jigéen bi nekk marché Sam bul xool bureau bi ñu lay dugal ba tax ñi représenter représenter il va falloir que ñu représenter leen dignement dem ci quai de pêche xam lan moo xew la taxoon ndaw di bàyyi jàngam di dem ca géej am lu ko waraloon léegi nag loolu bu fa nekkatul ñu xool lan moo tax nekkatu fa ñu améliorer donc je pense que ni mbir le mal est profond mais je pense que solution mën am solution lu possible la mhm. si bu ñu fas taxaw rek bureau d'immigration mbiru immigration clandestine mhm. je pense que ni à partir de Dakar fukki penc ak ñaar yi mhm. mën nañu waxtaan ci côté bobu Sénégal les 700 km de côte tok rek les problèmes bi mettiwul mais na fekk ñu tek un débat sérieux jot na daal fi mu nekk nii moom. en tout cas les assises côtières. Mhm. jot na fi mu nekk nii pour mu am quoi. 700 kilomètres de côte nga am ko mais dafa mel ni euh, Sénégal ba léegi euh, jëriñoowul richesse boobu. non non non franchement jëriñoo ko. waaw parce que mënoon nañ ko exploiter ci yeneen amoon anam ba xale yi mën a toog fii euh, di napp di jaay am lu ñu yóbbu seen kër. Ah, toujours ci question sociale yi ñu ñu dugg ci beneen beneen beneen aspect ñu ngi ci nawet. Mhm. te ku wax nawet day wax mbiru inondation naam euh, taw bi bareegul pour le moment au Sénégal eh, waaye nag ba léegi ci yenn ci zone yi euh, lii di inondation mu ngi fay persister ba léegi mhm. euh, zone bi ñu nekk nii zone nord ay at ci ginnaaw sonnoon nañ lool ci li ñuy wax inondation daaw liggéey nga ci ak avec la mairie de de Thiès Nord yow lan nga jàpp ne moo mën a jeexal vraiment phénomène inondation ci dëkk yu mel ni Thiès moi je pense que le phénomène inondation Thiès jafewul jafewul lijjanti a la volonté la euh, détermination mm-hmm. mais aussi appui état par exemple on jëlee une zone bu mel mm-hmm. aujourd'hui avec euh, la réalisation d'un canal et je pense qu'ils ont commencé les travaux mm-hmm. la réalisation d'un canal tey mën sauver toutes les inondations de Ngent tous les inondés de Ngent donc côté la volonté politique avec la LAC, maintenant revoir aussi euh, l'assainissement de Thiès. il faut revoir l'assainissement parce que tu as dul dara sax yi nga euh, c'est devenu vétiste parce que yàgg na bi mu amé du curage mais revoir l'assainissement. alors loolu nag liggéey la ça demande du sérieux ça demande ça demande des moyens colossaux. boo xamee aussi force est de reconnaître que ni collectivités locales yi tamit mais est-ce que ñu ngi par exemple fi nga waaw mairie Thiès Nord je pense que eh, aussi toutes les communes def des opérations pré pré hivernales mhm. def aussi à la hauteur de leurs moyens il faut que nous, nous quand même aussi mhm. les communes ont des moyens très limités mhm. leurs moyens sont très limités donc nous euh, def fait ce ñu mën rek à ci des nag état moo ci ci à travers ses services compétents d'accord mais cher, yow bande relation vraiment maire yi nekk cees gis nañ la daaw nga nekk un maire nga nekk koo xam ne avant ngay créer sa mouvement yaa ngi woon ci euh, li ñuy wax alliance pour la république mm-hmm. euh, xam nañ ne waaye Yewwi Askan Wi ñoom ñoo nekk ci maire cees Nord mais am na marché yoo xam ne ci wàllu liggéey yow <laughs> yow yow lañ ko joxoon ñu ñu demaat ville ñu gis la ak Babacar Diop Cheikh finalement fan la bokk. <laughs> ci Cheikh fan la bokk ci lan. ah parce c'est des maire yoo xam ne ñoo ngi ci opposition bi. waaw nga am ak ñoom euh, relation yooyu. parce que li ñu gisoon fii mooy euh, marché bu amoon rek d'habitude koo bokkalu parti politique moom du du du ci kii. du ci <laughs> du ci laal. Ah, xam nga. loolu mooy sa secret. bëgg Cees. Hmm. man bëgg Cees rek mooy sama secret. kese kese kese bëgg Cees. parce que loolu am na lu ko jiitu Lamine Diallo nekk na fi maire Cees Nord. Hmm. Euh, ma nekk APR mu nekk ci opposition bi. ma jàppalee ko ci commune bi ci ay investissement ak ay partenaires à hauteur de huit cent cinquante millions. Hmm. loolu yaakaar naa ni six ans ngi nii ma koy wax te kenn weddiwu ko. ñu nekk ca mairie Thiès Nord jamonoy Lamine Diallo. Hmm. ba léegi kenn du ko weddi. da nga ko jàppale rek quoi. jàppale mooy jàppale mooy nga gis lu baax. Hmm. à l' étranger. wala nga gis ay partenaires yu nekk étranger bëgg a investir nga indi leen ci sa commune. te yàlla def na am na ci beneen projet piscine municipale bi tudd trouvé woon nañ investissement beeg lépp à hauteur de trois milliards waroon ko indi ci commune bi Thiès Nord Thiès Nord ba lépp sotti woon na lépp sotti c'était man ak Assane Bay ñoo ko doon dox avec Babacar Fall bref après bon quelques lenteurs administratives moo tax loolu loolu amul donc ku def loolu ak Lamine Diallo mm. amoon yéene jiite commune bi bon ñëwee équipe bi fi parce que pour man nit da ngay nangu dogala ah. ñun ñëpp dañ compétir man j'ai tout fait pour que Lamine Diallo parce que c'était le candidat de ma coalition ben Bokk yakar mm-hmm. waaye yàlla biram la dogal mu mais aussi qui a eu un esprit d'ouverture et de grandeur mm-hmm. dire que ni du jox nit ci gox bi mën ko loolu moo taxoon mu dénk ma tout ce qui est gestion des inondations l'année dernière mhm. ma ànd ci nag ak équipe liggéey ko mhm. def ci li ma ci war a def mu doon liggéey bu mucc ayib au grand bénéfice gis yi waaw daaw ku xool Thiès Nord xam ni inondation yi wàññeeku na bu baax ren ku ko xool aussi xam ni mhm. liggéey bi ñu liggéeyoon daaw ba tey dafa dafa baax bi mu baax moo tax wax dëgg yàlla lu bari daal ci inondation yi euh, population yi sentiruñu ko ville nag la ñu fooy gis bëri na tamit de. ville Babacar sama mag la. Babacar sama mag la depuis université. Hmm. Babacar euh, jour bi policier di damm sama tànk à l'université man ak moom ñoo yendu. 36F. Hmm. Hmm. suba ba jant so. quelques heures après suñu benn xarit woo ko ne ko damm nañ tànku Cheikh kooku suma mag la donc. naturellement tey bu ko yàlla dénkee lu ñu mën pour jàppale ko rek dañ koy def. lu ñu mën lu ñu gis lu baax dañ koy yéene Thiès. Mhm. parce que dañ gëm ni ñoom li ñu yor ëllëg ñun mën nañ ko yor. Mhm. kon le fait que suñu formation politique gañewul ce n'est point une raison de ne pas contribuer. Mhm. vraiment au développement de cette ville. très bien euh, maintenant globalement nan nga gisee seen liggéey ñoom maire yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Thiès euh, depuis bi ñu leen falee en 2022 ak jamono bon. li ma mën a wax moom je un chapeau à Babacar. Babacar Diop. waaw Babacar Diop moom je un chapeau macha allah. Hmm. dangay gis volonté bi da gis détermination bi. Hmm. dangay gis engagement bi. moom mais Babacar làmp yi rek la fi talent. peut bi mu ngi ciy góorgóorlu ak waa ak agent yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci municipalité bi. pavé yi nag pavage yi jàmbaar la de mi ngi pavé. Hmm. mi ngi def quoi. ñu gis ni jàmbaar la ku gis xar kanam Thiès xam ni. voilà Bakar mi ngi góor góor lu mi ngi liggéey. Hmm. boo xoolee sax délibération je pense que conseil municipal bi am barke demb hmm. ci saal bu saal bu bees bu saal bu bees bi bu mu inauguré fa la ko defee. Hmm. loolu aussi bokk mooy ci ginnaaw. waaw ci ginnaaw xam nga loolu aussi bokk na ci lu am solo. Ousmane Diagne j'ai toujours l'habitude de dire que ni sa modestie rek mën na ko sa modestie mën na ko joxaat sax un second mandat. Ah oui Maître il est très ouvert. Hmm. jovial c'est que Maître Diagne n'a pas waaw kon kon kon gars yi bëgg a maire yi Thiès est moom xam naa dinañ liggéey de pour ñu jot jotaat ci. <laughs> man de su ma amoon ambition Thiès est damay toxu nga tox <laughs> li ma gis nii. <laughs> ah oh jàmbaar la. jàmbaar la franchement. Hmm. Maître Diagne en tout daal mu teg tànkam bu ko teggiwul. waaw gars yi mën nañ seeti leneen de.

ñu bëri di laajte Cheikh Ndoye lu tax nekkul candidat. waaw xam nga man dafa am lu ma mus a mooy que ni du ma bokk ci luy fragiliser la coalition benn Bokk Yaakaar ndax nag euh, yaakaar naa ni amul coalition bu bëggul woon ànd ak man ci élection locale yi passé Cheikh da nga wóolu Cheikh wóolu woon sa bopp rek xam na. waaw bu la neexee mën nga ko tuddee noonu man mhm. je pense que ni quand le vin est tiré il faut le boire. parce que bi may liggéey ñun dañoo gis ñi la ëpp responsabilité ci parti bi. Mhm. Euh, Macky Sall wax lii ñu jaarnale dans dans dans dans leur ville dans leur commune gis nañu ko ci mel ni Mame Boye Diao. sori na da nga naan Ablaye Dieng rek. voilà Ablaye Dieng mais Ablaye Dieng sax bokkul bokkul woon APR. bokkul APR sax. Ah, boobu may wax ak yow nii. il était de la mouvance présidentielle mouvance présidentielle mais je parle de ñi nga xam ne APR authentique la ñu Macky Sall wax na lii ñu def leneen oser ba ñu peut-être yow audace boobu moo la manqué woon non du question manque d'audace du question manque de courage mm-hmm. mais nit boy liggéey. Mm-hmm. dafa am ci ci ci bannière boy liguey mm-hmm. moi je travaille à être le candidat de Benno yakar. à Thiès Nord. man ci logique bobu la de 2019 à 2022. xamone sais nañ ko responsable. ah bien sûr xamone nañ ko xamone nañu ko man ci logique de la entre temps il y a eu l'entrée du Réumi dans la coalition Benno Bokk Yaakaar. le Mborok Sow voilà le 1er novembre 2020. <laughs> léegi le Mborok Sow est né. donc Mborok Sow bi bu bu bu naturellement dañuy wax li ñuy tuddee redistribution des cartes. maanaam na ben coalition bu bu baax ak Pape Doumbia mi. Mm-hmm. borom Thiès ca kanam borom Thiès ca kanam. Mm-hmm. bi ñu toogee waxtaan. Mm-hmm. ma ko dag may bàyyi yow mané ko tax dama ko né sax d'accord yow yaa ma ëpp doole yow demal ville man ma resté Thiès Nord. Ah, nu non, mu la ëppee doole. non yow yàgg nga ci lan def bi cher may ma négociation politique laa lay wax. ñu ngi ci négociation politique. Mhm. xam nga li ma la wax. Ah, man su ma bëggee jël Nord. Mhm. man dama koy yëkkati. mu ne ko yow demal ville. Mhm. man ma des Nord. y a des témoins les gens de Thiès Kanam étaient là man j'étais venu avec mon staff les Ndiobasow les jumeaux entre autres. comprends nga li ma la. moom mu ne ma. man bi may liggéey liggéeyu ma woon pour ville dama liggéey pour Thiès Nord mais man bi may liggéey dama liggéey pour être le candidat de Benno Bokk Yaakaar kon bu bu bu bu mbir boobu amee rek le président ne Idrissa maintenant tu choisis à Thiès mhm. comprendre nga mhm. Idrissa n'avait pas la bonne information il faut avoir le courage de le dire def affaire bukki xam nga jox jox lépp. man affaire bukki la def waaw <laughs> wax ko rek. de en tout cas daal jox na waa réew mi il n'a pas été généreux quoi. en en envers ses ses ses camarades de coalition. bon peut-être sax mën na doon mën na bañ a doon euh, absence. Euh, de manque de générosité manque de générosité mën na bañ a doon loolu. Mhm. mais xëj na jàppoon na ni. Mhm. réew mi li mu li mu li mu téewoon téye na ko. xam nga souvent day mel ni ce qui a perdu Abdou Diouf en deux mille. Mhm. Tanor le fait Ousmane Tanor Dia yalla nako yalla yàlla nan ko fi mokk na fi mokk na fi mokk na fek fek fen mokul uh-huh. comprendre nga hmm. donc lolu je boobu lolu su amé man pour ma wat ginnaw créer wat lenen uh-huh. da fay metti te dina sonal ñu may andal hmm. je leur ai dit voilà la situation est là le maire sortant Birame Soulay est venu après 4 jours de négociation. est-ce que mon regret après les élections là est-ce que mm, dans ton fort intérêt tu ne man pas bon je sais que tu as su que tu as pendant trois ans absolument mais déception c'est que ngi absence de choix L'absence de choix bi yow da ngay pour moi, bok ci élection yi ba nek coordinateur des jeunes de Benno Bokk Yaakaar de la ville de Thiès. loolu suñu dëgër suñu taxawaay. mais sant nañ ci yàlla parce que boo demee ba le maire sortant pare pour jox la récépissé Thiès ca kanam pare pour ànd ak yow. kii gagné tey après quatre jours de négociation mën naa ni man la njëkk a woo na ma lii laa am ci poste nañ def lii. donc yooyu yëpp su amee situation bi am. mën nga regretter mais du dara pour man dañuy dañuy ay parce que aussi un jeune il faut éviter d'essuyer des défaites électorales j'ai donné tout à l'heure l'exemple de Cheikh Bamba il est jeune 2007 il une élection perte 2012 dem na perte 2019 il n'a pas participé déjà étant jeune il a essuyé trois défaites électorales donc je me suis dit que moi je suis encore jeune. loolu le patience rek. man yàkkamtiwuma dara suma on peut dire que peut-être qu'il n'a pas d'ambition man je ne ak Ousmane Sonko ambition. mais dara. Mhm. je donne du temps au temps. d'accord Biram Souley, je nekk maire. waaw mu sa commune. Mhm. Euh, des débats de couloir disent que Biram absentéisme moom li muy fi nekk commune est-ce que yow non nga gisee dégg nañu benen ciow tam surtout ci mbiru foncier bi à Thiès Nord. Mhm. toutes ces questions là Cheikh lan inspiré. bon de façon Biram, le fait que rek mu taxaw ni en décembre 2022 on ne sera plus 38 députés maires parce que je vais rendre la commune c'est dû à la pression motax mhm. mu togat que mhm. rek man ci à mes déception. bind ko fenn nag du téere de. waaw xam nga du téere mais warul woon doon lu muy wax ndax commune bi moo tax tey mu jot ci assemblée bi. Thiès noor moo tax. xam nga li ñuy wax ni un homme politique fa Mamadou Dieng yàlla na ko yàlla yërëm. da daan wax naan un homme politique da am li ñuy wax gol. gol mooy. gol mooy sa base arrière. sa chasse gardée da nga ko war a am. Mhm. biram Thiès Nord la am. Thiès noor moo ko yóbbu assemblée. Mhm. donc Thiès Nord entre Thiès Nord et assemblée tay même bu waroon a démissionner. Mhm. pour moom assemblée la waroon choisir ci commune parce que mooy base am. c'est ce que tu leur conseilles. su ma ko doon conseillé loolu laa koy conseillé et puis rien ne l'oblige aussi à ce que moi wax. Mhm. <laughs> rien ne l'y obligé donc. Mhm. côté Bobo, déjà loolu rek su amee beneen bi il n'est pas trop présent dans la commune il faut le reconnaître. il n'est pas très trop présent dans la commune. Mm-hmm. il gagnerait daal en ce que mu ñëw. gën a jege gars yi gën gën a gën a jege gars yi quoi. Mm-hmm. Euh, suuf si nag li ci des poche yi ak yooyu yow yaa ngi ci mbiru suuf si yow tamit. bien noo gisee gestion bi fii dans la commune. xam nga. parce que dégg nañu ci lu yàggul dara ku ci mel ni euh, Massamba Diop. mu nekk ah, ah. jeune comme yéen. muy muy wax ci mbiru suuf si mu jàpp ne bon ni ñu ko commencé di yor nii euh, c'est pas xam nga man mbiru suuf su ma ciy wax dama ciy waxee ci double casquette. Hmm. mooy que je suis le ministère de l'urbanisme xam naa assiette foncière yi nekk Thiès yëpp daanaka. Mhm. muy benn. Mhm. ñaareel bi aussi man su may wax fi ma toll ci politique. Mhm. li Idrissa Seck di wax soo jotee information. fata bayyanu da ngay leerlu. man damay bàyyi ba leerlu ba gis de façon. le coordinateur euh, départemental de RV Massamba Diop que je salue de passage génn na wax j'ai vu le rapporteur euh, de d'homme de la commission domaniale de Thiès Nord El Hadj Khar génn wax mhm. j'ai vu encore que Hervé sont sortis mhm. tey ñoom ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci mbir yooyu mhm. euh, de façon mbiicoog mbaalo bi bëri na mbiicoog mbaalo bi bëri na man position bi ma ci am mooy que ni je pense que ni ñi attaqué ak ñi répondre yëpp intérêt Thiès Nord moo leen tax a jóg euh, mais je ne pense pas, très honnêtement, mm-hmm. que Biram Soleil commettrait l'erreur mm-hmm. d'entrer dans un scandale foncier, mm-hmm. étant inspecteur des impôts de même. Mais Benen bi actuellement, la manière dont ils sont surveillés comme du lait sur le feu, mm. je pense qu'ils ne commettraient pas cette erreur. Est-ce que Thiès Nord défend un souffle Man en connaissance de cause, je ma xam bu baax je baax leer ma ni ku ma fëgg la documentation bi hmm. mooy Thiès Nord bu ñu recensé poche yi fi nekk yëpp hmm. ñu calculer poche yi ci 9 hectares lay 9 hectares. ci 9 hectares ci 9 hmm. hectares lay et ces 9 hectares ne sont pas prenables. C'est imprenable. parce que. mënuñu ko jot parce que poche la yoo xam ne daf ci bëri de litige yoo xamee ni c'est pendant à la descos mm-hmm. donc loolu nit mënu ko jël mënuñu ko attribuer actuellement nii mm-hmm. munta mm-hmm. à l'heure actuelle Thiès Nord bu fekkee ni il n'y a pas la phase 3 de la ZAC la commune ne peut en aucune manière participer à une délibération ou bien à un projet de lotissement xanaa accusation gars c'est c'est fallacieuse je ne dis pas cadre ñu yëkkati je ne me dis pas que ce sont des accusations fallacieuses parce que je pense que aussi que euh, responsable la responsable je le connais très bien, mhm. on a partagé beaucoup de choses ensemble on se connaît bien depuis l'université mm nous euh, donne un objet de délibération mhm. ce sont des terres yo xamé ni ay nit ñoko mhm. ci projet soxla la délibération de la commune bu fekkee ni loolu la réeroo moo am ci seen biir parce que ñu ngi sax ne c'est douze délib treize délibérations pour douze personnes il y a une personne qui a deux délibérations loolu amul sens man soo ko li may jàpp ni mooy un un scandale foncier mooy que tey ay nit taxaw ni dañu jël suñu suuf voilà dañoo nangu suñu suuf xam nga même les réaffectations moo gënoon a nekk scandale te du scandale parce que il faut connaître d'abord les régimes domaniaux au Sénégal mm-hmm. xam lan mooy titre foncier xam lan mooy bail xam lan mooy un terrain du domaine national euh, désaffectation ak réaffectations, c'est prévu xam nga tey xam nga loolu c'est prévu te pourtant terrain bi yow yaay dem jëndal ko sa bopp mm-hmm. mais boo ko jëndee te tabaxoo ko mm-hmm. l'autorité qui t'a attribué la parcelle mën na ko jël mu dem jox ko keneen pourtant loolu lañ doon jël di ko tuumaal Lamine Diallo. mais mais Cheikh tamit loolu loolu est-ce que xawul contradictoire c'est vrai que Sénégal ñu bëri amuñu moyen. dañuy taaba taaba ba lijjanti sa terrain. mën nga lijjanti terrain mais doo am loo koy tabaxee est-ce que loolu waruñu ko xoolaat. moo tax ma ne la il faut qu'on revoie mhm. les régimes domaniaux qu'il y a au Sénégal. man am na benn booy bu ma mos a fii Ngent je vais taire son nom. Mhm. ci ñoom la ñu yóbbu ci logement yi am fii ci lycée technique bi. c'était en 2019 mu ñëw ne ma waa dama ñun dañu ñëw suñu kër ne nañ ci ministère bi ngay liggéeyee moo tax ma lay laaj ma ne ko booy pour nga laaj ma xam nga yow yaa am ëpp doole mu ne ma ma ne ko mais dangay dooma dóor dama lay wax dëgg bi wax la taxi yi hmm. waaw ma ne ko pour dire vrai sa papa musta am kër rek mu sigi xool ma ma ne ko moo ko jënd ma ne ko moo ko jënd ak xaalisam et tout mais moomu ko hmm. ma ne ko sa papa amul kër bu ko état bëggee da koy jël hmm. ma ne ko donc fii leen proposé mu ne ma naam ma ne ko demal ngeen jël ko ma ne ko parce que bis bu état di ñëw di ko toj doo ci mën dara il t'avait prévenu mais c'est moralement difficile tout ça non moralement c'est pas acceptable mais c'est la réalité la du la, la loi est dure mais elle reste la loi dura lex sed donc il faut que nit ñi ñu xam loolu moo tax man suuf moom toujours li ma ciy wax rek xam nga nit kiy toog di ko jàng xam ko di ci xëy chaque jour bokul peut-être ak kuñ ci jox information. wala kuñ ci wax dara wala kuñ ci wax leneen ak leneen ak leneen. mais il faut que ñu xam régime domaniaux yi ba pare. xam réellement niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko war a niñ ko niñ niñ ko war a joxee. attribution yi niñ koy defee affectation yi niñ koy defee désaffectation yi niñ koy defee. loolu soo ko xamee rek doo réer. tey jii le maire Lamine Diallo. lan lañ ko waxalul ci suuf fi mais kenn da ko mën a épingler ci loo koy mhm. non non non. Mhm je pense que ni nañ jéem waxtan waxtaan trouver ay solution rek pour euh, l'intérêt des populations ba jusqu' à présent gisaguma population bu génn wax ni commune bi dafa jël sama suuf d'accord euh, voilà ñu fatil ne ñu ngek ak Cheikh Ahmed Tidiane Ndoye muy responsable politique euh, fi ci commune bu Thiès Nord nek président mouvement pour le renouveau démocratique liggéeyal sa réew pour ñu jeexal ci li nga xamné nak modi question Thiès Nord yi Cheikh Thiès Nord tay lan mo fi priorité wala lepp priorité la Bonne économie maire bi tey ci question vraiment ngay engagé wu population peut-être éclairage bi am na li fi am doyul assainissement mi ngi fi éclairage mbiru insécurité. Mhm. je pense que ni éclairage boobu nga wax tey su ma nekkoon maire Thiès na priorité le marché le désengorgement du marché surtout le marché sans les embouteillages l'absence d'assainissement au sein du marché. Mhm dina dina bokk une priorité loolu moom bokk na ci li nga xamee ni mm-hmm. mais aussi les inondations mm-hmm. les inondations surtout dans certains quartiers mm-hmm. à l'intérieur de Thiès Nord dina bokk ci li nga xam ne dina dina nekk suñu priorité d'accord et la sécurité au sein de la commune d'accord voilà euh, laaloon nañ tuuti ci question politique yi euh, Cheikh ku la xam xamoon la ci APR maanaam parti président Macky Sall mm. alliance pour la république nga teg sa mouvement ñuy dëgmal si ay élection présidentielle en février 2024 mm. teg nga sa mouvement xamaguñu chef fan la dem fan kan kan lay àndal wala sax man mën nañ ne bon d'après ci information yi leer na ne chef moom mm, saf na sàpp ci biir parti réew mi <laughs> maanaam ni nga engagé woo ci parti réew mi sax mosoo ko engagé woo noonu APR non man bokkuma réew mi. waaw ah, mais da nga yor sa mouvement mais jamono ji mom hmm? waaw mais xam nga moy li may wax euh, man bokkuma réew mi. ça je tiens à le préciser. je suis pas un militant de réew mi. mais nit boy and ak mom da ngay and ak mom àndu nawle ñun MRD bi ñu toogee waxtaan ñun ñëpp en toute démocratie le président Idrissa Seck la ñuy àndal par le biais de Yanko Diattara il faut bien le préciser. donc euh, c'est normal nak mbir nak bo ci nekké militant yang ko ba jatar nga la la gay wax <laughs> non xam nga jatara mom tol nañ fo xamé ni mom ay militant yang ko ba jatara mom wax ko sax yak la jatara sama kilifa la ah oui xam nga militant mom mhm. so deg bokku lako waji gis gis rek day dem nga dem mhm. way nak man ko ba day sama kilifa mhm. mais cheikh mais est ce que mesurer nga li nga wax idrissa sek dem na fi ñetti élection waaw coalition bi mu amoon en 2019. Mhm. ah man de gaw man dina ko am ci 2024 est ce que mesure nga euh, tout ce risque là nga nar a dem Idrissa Seck en 2024 vous savez Isidore sans risque la vie n'a pas de valeur benn. ñaareel bi nee nga Idrissa Seck dem na trois élections mais il est opposé gul 26 ans. et Ablaye Wade après 26 ans la ko jël pas un problème mais je pense qu'actuellement sauf sauf que dit politiquement amatul dara ties bu may wax que politiquement moy amul ben mairie bi nga xamné il dit nitu Idrissa Seck mom moo koy gérer ties bo démé assemblée nationale le réew est quasiment inexistant. inexistant oui. mais lolu lolu du dara je pense que ni il faut apprendre de ses erreurs pour euh, pour mieux sauter. Euh, Idrissa Seck tey yeewi askan bi ku leen newoon di ngeen am ay mairie Thiès en deux mille vingt deux duñ ko gëm. Mm-hmm. même à la conférence des leaders nee nañu Ousmane Sonko nee leen Thiès moom dem leen ngeen participer rek mais machine boobu fa nekk mënul mënoo <laughs> ci dara. Mm. et bi bu ñu ñëwee. Mm. machine bi dafa mel ni amul graisse. yeewi askan bi dafa ñëw raafale lépp. le baobab Idi. a été déboulonné a été déraciné. <laughs> voilà voilà léegi ñu dem ci lolu ñu né élection locale yi dañ liste yi demoon la. Mm-hmm. mais cette fois-ci. Mm-hmm. Euh, nañu bolo ñëpp ñëw Ablaye Dieye voix ak <laughs> et quelques voix vous n'avez vu que du feu. Il <laughs> y ñëw ñëw la a la parce que même élection locale yi. doon nañu sax bajantu. naan non PV bi mais avant 18h30, <laughs> xam nañ ni on a perdu les élections que voilà Birame et les maire ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm. Euh, la dame maire de pour l'honorable député décédé comprendre nga ma. Touré maire ko xam nga mu leer ñooñu gagné nañ donc pour dire que ni politique dafay ubbeeku. man je dis une chose kenn moo mënoon a tere nekk Idrissa Seck président. kon muy Ousmane Sonko. Ah oui bien sûr. kenn rek la leeroon Sénégalais neneen bu participer aux élections. monsieur bala ñu xam sax euh, kan mooy gagné 2024 wala yooyu Cheikh yow ak sa mouvement bi. waaw lan ngeen mën a indi Idrissa Seck sa mouvement bi barki démb la judd Cheikh. non xam nga vous comprenez une chose. tey mouvement bi li ma tànk ci APR rek. APR bi nga nekkoon. bien sûr li ma ci tànk rek ëndaale mouvement bi APR rek laa ëndaale. ba ci Thiès bi. Hmm. <laughs> wala yow ci àll ba rek ngay indi ay nit. non fi Thiès sa wew tànk Thiès laa njëkkee Thiès laa njëkkee beneen bi aussi xam nga nit dafa am station boo xam ne soo fa àggee. day laaj ay link rek nga def li nga war a def hmm. ku dem ba nekk coordinateur des jeunes de Benno Bokk Yaakaar de la ville de Thiès. Mhm. nekk coordinateur des jeunes de Benno Bokk Yaakaar de Thiès Nord. donc conseil national de la jeunesse. dem ba conseil de la jeunesse du nekkoon délégué université. Mhm. jaar coordination des étudiants Thiès Nord de Dakar. Mhm. mais sëñ bi ñu ay link yu ñu mën a gérer. ñaata parrainage nga fas yéene jox Idi. bon <laughs> Idrissa matal na parrainage ba pare. no yow laa ak sa mouvement lan ngay indi. bon. promesse bi lan la. loo koy promettre non ko promettre ñun ñu ngi liggéey te jëwriñ ju mag ji mu ngi koy gis yaa ngi ba jatara donc nous on fait pas de promesse mais li am solo. Hmm. mooy que ni bokk nañ ci premier mouvement si nous le premier. Hmm. à nous dire que nous nous engageons aux côtés du président te boobu ba léegi ci loolu lañ nekk. Hmm. waaw ci loolu lañ nekk ci loolu lañuy ñuy dox. ñun lu ñuy wax ñu xeexuñu. ñun daal suba ñu ñu xëyee. ñu ngi xool ci lu jëmale président Idriss Seck kanam ñu nekk ci. di jël militant APR rek di ko yóbbu fële. bien sûr lan la ñuy jëlee waa réew mi di leen yóbbu ñun kay. li ñu am loolu la ñuy jël di ko yóbbu lu ba nga génn lu xew. non APR dara dama jël sama yoonu bopp rek dama gisatul dama gisatul lu ma fay jàng quoi. oui gisatuma lu may jàng APR tamit euh, hmm. nit da ngay fonk sa kàddu da ngay gore man maa ne woon bu jatara génnee ma génn. maanaam lu jotara génne ma génn et que je n'étais pas non non laataa loolu yow yaa ngi woon ci <laughs> alliance pour la république waaw lan nga gis lu la fa neexul surtout à Thiès bi ba tax yow nga teg sa mouvement non jóge foofu dem ci dem ci dem euh, ci waa réew mi nar a ànd ak ñoom ñun utuñu jabaru faj mer xam nga boo ne dafa am lu la metti APR moo tax nga créé mouvement dama la laaj lan moo la fa metti woon non déggoo li ma la wax ba tey de moo tax man la dara mettiwuñu rien dañoo xool beneen vision boo xam ne rek ci lañu gën a mën a liggéeyale Sénégal ñu tegu ci. waaw hmm. ah, loolu la rek. nekkatuñ ci yoon wi xanaa waa APR. APR bañ wàccee yoon wi day tey. ay <laughs> ah, ah non wàcc nañ yoon bi yàgg na. tàngaa yaa ngi doxal fii de Thiès fii les les les Augustins coordonnateur <laughs> départemental. <laughs> Abdou Mbow waaw. du Mbow léegi kii la sax poète la écrivain la. Hmm. Abdou a déjà préparé sa retraite politique bind na livre keroog waaw. waaw ah effectivement nee naa ko na ma kii yónnee benn na na ma tafaa ko indil benn mu dédicacé ko ma lire ko. écrivain la léegi nga wax. ah mais amatul lu muy wane politiquement. il a déjà sa retraite parlementaire. Hmm. il n'a plus rien à prouver. Il a fait trois ans d'opposition, mmh. 12 ans de pouvoir. Mmh. Si ces 12 ans, il a dirigé la COGER pendant 5 ans. Dans hmm. les prouvé Mais c'était au, au, niveau local. ba Vous le maire à Thiès, par exemple. ah mais ah yàlla de mooy fal waaye yaakaar naa ni bu ko doonul woon boobu ba léegi. Hmm. dina jafe de yàlla nag mu waxul kenn dara. Hmm. Ah. sa nijaay nag. lu mu yoree lu mu <laughs> <laughs> ki nga tuddee Serigne Ndiaye le maire de Fandène le ministre Augustin Tine noo gisee coordination bi wala ba ngay dem noo bàyyi woon coordination bi. woon na jaay nee ko nee ko nee ko nee ko xuloo bi jeex na quoi. alors maa ngi dajeeg moom benn dëj kër maa laaj di ko nuyoo so so so nijaay yow tamit damal ga préparer retraite bi rek. Eh. <laughs> ndeysaan ay gars yu baax lañ baax nit yu baax lañ. Hmm. ñu ngi ci seen yoon mais ñom xam nañ ni kax ko ni le benn bokk yaakaar na ko plus gagné de l'élection au Sénégal c'est fini. carte gi dal iddi la pour yow. waaw man de wax dëgg yàlla. Hmm. si vraiment les Sénégalais prennent conscience. Hmm. xam nañ ni fi réew mi toll surtout la géopolitique sous-régionale je ne parle pas du contexte mondial. Mhm. Il nous faut un leader comme Idrissa Seck qui a très tôt vu la ceinture de feu qui était en train mhm. d'entourer le Sénégal. Mhm. Donc euh, on a besoin de cet homme d'expérience. D'accord. Pour euh, continuer. Homme, d'expérience là, mais l'un lui reproche Idrissa Seck, il est trop trop trop loin de la jeunesse Il dit, moi, am doole comme Nico il dit yi di il euh, boo ñu am âge vote est-ce que amul liggéey bi ko xaar ci côté boobu waaw mais liggéey boobu ci lañ nekk ci la am ay ndaw yu bok conseil national de la jeunesse est ce que affaire dépassé wu ko non xam nga aduna lo gis isdor hmm. tay sa pap ba nga baye sangé hmm. amna lu bari lu ko raw bir ties mais yow bo ñewé hmm. goudi di nga wax papa li ak li mo xew fi la rew mi tollu tay bër na ci suñu kilifa yo xamne xamuñu lu ñuy installer whatsapp pourtant am nañu whatsapp comprendre nga. donc tay moy li may wax. xam nga président Macky Sall lu tax euh, yu bëri yi am. mooy que tay so jëlee bu la denké ñi mu denk politique agricole exemple. lañ lañ wara dem gisi baykat bi xol lan moy mébétu baykat bi ak nan la ñuy ñongalé ñoŋalee liggéeyu ñom duñ ko andir Macky Sall ñun tay nous avons l'obligation de dire la vérité de dire au président Idriss Seck les mots qui gangrènent aujourd'hui cette jeunesse pour moi. Je ne xam mënul dem mhm. mënul xam mhm. mais tu et puis aussi. Euh, comprendre parce que. ba par exemple interview sur Facebook. da Ousmane Sonko inspiré hein? non je dis interview sur Facebook. <laughs> Hmm. mais avec quel journaliste. Ah, dëgg peut-être bitim réew la nekkoon mais il mosul nangu genre. non même non même bu muy tout récemment avec euh, le jeune euh, Pape Matar Diallo. Hmm. qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur Idrissa sek mais si ce dernier accepte. Hmm. de le recevoir de faire. Hmm. tey le niveau d'Idrissa il dépasse largement Pape Matar. mais s'il se permet aujourd'hui de parler avec lui d'échanger avec lui. moi que ni accepté na lu accepté na lu bëri wàcce na niveau bi quoi. wàcce na niveau bi mhm. parce que gis nga même yonent soo ko yónnee ci nit yi il faut nga def loo ko yëfu nit mhm. mu mel ni jur nañ ko mhm. am na ndey ak baay bokk na ak kii bokk na ak kii eh, comment dirais-je am na soxna am na doom nekk ci biir nit ñi di def yëfi nit ñi tëru nit ñi loolu day am donc dafa il xam na ni il a compris que il faut mu wàcc ci niveau bi wax ak nit ñi échanger ak nit ñi ba sénégalais comprendre ko mais gëm naa ni bu ko Sénégal ñemee dootuñ ko bàyyi. Idrissa Seck euh, wax nga ko léegi ku am expérience la ci wàllu politique. am na famille bu mu bokkoon ci wàllu politique. fa la nekk ba léegi sax jàpp naa ne moom euh, libéral la. Mhm. yéen a ngi waaj a teg seen coalition deux mille vingt quatre bi. Mhm. est-ce que gëm nga ne am na ñeneen ñi nga xam ne vraiment c'est des grosses pontes yàgg liggéey ak Idrissa di leen rejoindre dynamique boobu pour gunge ko. xam nga man tey nit doo nekkat ay kilifa. Mm-hmm. ñu wóolu la. parce man xam naa ni le ministre Yankhoba Diattara na ma. Mm-hmm. na lu bari lu ci xam. mais du man koy wax. Mm-hmm. mais man gëm naa ni li ma ci mën a wax. mais bés bu ñu déroulé rouleau compresseur bi euh, sénégalais yi dinañ am mbetteel bànneex jëme ko ci sa Seck loolu moom je n'en doute pas franchement hmm. ñu ngi liggéey bu wér hmm. tooguñu yendaluñu fanaanuñu ana Moussa Idi mi ngi fii ci Sénégal hmm. di dem di gisee ak sénégalais yi chaque jour gars nee nañ campagne sax pour mu wër Sénégal problème ah loolu lañ jàpp bañ toll ca bu ñu yeexee day daw dakaar Thiès da daw à pied. Hmm. bien sûr. ñenn ñi jàpp ne Idi ba léegi mu ngi dil ak président Macky Sall moom moom mbiru dil moom <laughs> dafa mel ni da da da da ko yàqal lu bari daal. xam nga. nga hmm? président sa Seck mënta réeroog Macky Sall. gis nga Sénégal képp ku ko namm jiite. Hmm. après Macky Sall faw nga xaritoo ak Macky comme ni mu ko waxee. Ah moom nag nit ñi dañoo war a xaritoo mais moom Macky Sall rakam la. kon moom mu nekk président daal yaakaaram ci Macky Sall la ko teg. déedéet. au ko mu teg ci peuple bi. non non non déggoo ma Isidore dama ne Sénégal képp ku mën a jël. Hmm. faw nga am soutien wu Macky Sall. parce que Macky fi mu yóbbu niveau bi moo sori. Hmm. fi mu yéegal niveau bi moom moo sori. Hmm. donc et Macky Sall aujourd'hui a l'obligation d' accompagner président bi ñëw da ko war a accompagner da ko war a gunge parce que ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la mën a wax fi ngay toog. Idi de jàkkaarloog candidat Macky de. ah pourquoi pas dañu dañuy jàkkaarloog moom kay. bien sûr. match la de. non mais. Idrissa surtout surtout à Thiès. non non non Thiès moom du am match moom ce qui est sûr moom Thiès moom ay formalité la rek. comment ça. à Thiès le match sera en différé. kol Thiès waaye xam nañ ko Thiès yéen yéen ngeen nar a jàkkaarloo ak waa Benno Bokk Yaakaar nar a jàkkaarloo ak Babacar Diop. non non ak yeneen candidat yi fi déclaré Thierno Alassane Sall est là. la bataille de Thiès n'aura pas lieu. Ya. loolu moom c'est sûr. Hmm. donc loolu ngeen doon wax fii de seen coalition bi gënoon. non bokkul bokkul gënoon na fee non les Thiessois n'avaient pas adopté le Mburok hmm. mais Idrissa Seck candidat. Hmm. cette bataille ne peut pas avoir lieu franchement. Ah non non non cette bataille n'aura pas lieu. Cheikh suñuy bataille dañ ko yebale ci élection locale yi rek. Cheikh Ahmed Tidiane Ndoye responsable politique fii ci Thiès Nord comme ni nga ko waxee nga fas yéene ànd ak ki nga xam ne moo di euh, Idrissa Seck ci élection février deux mille vingt quatre euh, daanaka émission sans détour li ci des bëreetul moins de dix minutes moom moo ñu dese euh, Cheikh. dinañu aborder tamit yenn question yi jëmale ko ci wàllu justice mm-hmm. bu ñu waxee wàllu justice xel day dem ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko jamono ji euh, ñëpp xam nañ ne mu ngi ci euh, kasso bi dégg nañ démb ay soxnam euh, di yëglu di wax ci li nga xam ne di wër gu yaramam situation bi dal Ousmane Sonko tey ban jàngat nga ci am vous savez que d'habitude man Ousmane Sonko bi muy metti laa ci waxoon bi kenn amulee courage wax ñu néew am courage wax man ci laa wax loo ci fàttali ñu. <laughs> xam nga sa moroom doomu aadama bu nekkee ci ay guddi yu lëndëm. Mhm. ñaanal ko rek mu génn ci. man muy damay masaw Ousmane Sonko. Mhm. di masaw tous les expatriotes parce que le parti n'existe plus. Mhm. di leen masaw di masaw njabootu boppam je pense sama première interview bi ma def ci Ousmane Sonko. biñ naan dem na fa demu fa am na amul li ma njëkk wax mooy maa ngi masawu njabootu boppam. waaw maa leen di massawu bu baax di massawu njabootu politique am kon tey tamit fi mbir yi toll en tant que doom aadama en tant que julit en tant que taalibe Serigne Touba ci safar gii ma nekk euh, li may mën rek mooy di ko massaw di massawu njabootam euh, di ñaan yàlla guddi yi mu nekk mu génn ci loolu rek laa mën a wax ci Ousmane Sonko mais mais mais nag Cheikh <laughs> événement yi fi xew yëpp juridiquement doo ma ne même boo nekkul homme de droit. am nga ci sa xalaat quand li ko dal yëpp. yoo xam ne ñenn ñi jàpp nañ ne euh, jaay doole bari na ci. xam nga mooy li ma wax rek. Euh, loo gis sa loxo borom mu ngi ci. Hmm, Ousmane j'ai toujours dit qu'il s'était trompé d'adversaire. C'était Macky Sall son adversaire, pas l'État du Sénégal. Hmm. Senegal nak, dañuy jay ginaaw dafa dafa jawale maki ak état. dafa jawale maki ak état parce que tous les fondamentaux de l'état hmm. ci bi muy tollu ci digu ndënd yi. Hmm. attaqué na len néna la Sénégal <laughs> bi dem dañuy waxtaan am programme bu ñu dajé benn femme ne ma yow rek lañuy top mané ma ko man kay bu len ma top <laughs> yeen ko len top boobu. <laughs> bam dugg ci guddi ngeen bayiko fa. xam nga bi muy tollu à ses heures de gloire. il avait. un peu mélanger les pédales Ousmane Sonko dama ko donne ci doon bim mu doon alalu borom barke. mais dañ ko jëriñoo mais jëriñul bopam Ousmane Sonko a ressuscité beaucoup de formations politiques. Ousmane Sonko a redonné énergie à beaucoup de gens qu'on avait oubliés politiquement. tay Sénégal lañ am na ñu am ci moom ay député. kon la mu liggéeyoon yëpp gars yi dañoo ñëw. dañ ko dañ ko dañ ko foqati dañ ko nax te moom jëriñul boppam Ousmane Sonko je dis qu'il a perdu le combat depuis que bi mu demee ne day dem jëli ci Ziguin Ziguinchor Baye bu Dakar un butin de guerre de 62 milliards hmm. la capitale plus ça presque 80 waaw nga bàyyi ko nga dem imagine Khalifa Ababacar Sall bi mu nekkee ci problème bi mais la mairesse de Paris est sortie l'association des maires francophones est sortie. ils ont wax ay moyens de pression Ils ont ñoom Anne Hidalgo Anne Hidalgo donc imagine Ousmane Sonko s'il était le maire de Dakar l'internationalisation de son combat mhm. jarul woon muy uti Juan Branco kon l'association des maires francophones ils ont génn porter combat bi ñooy porter le combat Il la prêter le flanc mhm. Et malheureusement, nos amis patriotes mhm. n'ont pas été stratégiques politiquement. Très bien. Euh, peut-être dañu jaxale ci beneen question mooy mbiru Khalifa Sall ak euh, Karim Wade. Mhm. dem nañu assemblée nationale gars réhabilité nañ leen. Mhm. Euh, am na ki ñu dégg dem sax pour ne pas le nommer maître Moussa Diop <laughs> né Karim Wade <laughs> double nationalité la am. mu melni ni ñaar ñoñu seen mbir ba légui surtout ci walu amande bi ak yooyu dara leeragul. Je ne sais pas pour Karim Wade qui nous doit 138 milliards. Maintenant, dañuy xool ndax Karim Wade Sénégal les juridictions sénégalaises condamnent ko. mais amel a 138 milliards nous koy faire une campagne ci d'accord je d'accord ci muy campagne de fayul. ah il faut que fay. Ah oui il faut que fay. foofu Karim Wade non mais c'est bi. Hmm. soit kon nañu génn ñu nekk ci kaso bi yëpp. mais c' est ce que du doon joxe xaw ma lan. joxe bopp rek ci làmmiñ ah non non non ah, gars yi réhabilité nañ leen ba pare est ce que. Euh, pour non nañ la. Mhm. mais dafa am loo amel askan bi. lim amel askan bi na ko fay ba pare mu soog ñëw bokk. c' est vrai que ki ngay topp jamono ji idi euh, waxoon <laughs> waxoon na ne euh, comme on dit dafa mel. d' accord loolu ci mbir yi bu dee sénégalais yi mën nañ toog ñu xool. Hmm. ñu ne ki jël seen cent trente huit milliards. Hmm. te doon demander révision procès parce que n'oublions pas que Karim Ouad n'a jamais accepté condamnation il a demandé une révision du procès est-ce que Karim révision procès révision mu procès pour ah, d'accord ci amnistie bi Ça me ba tey Karim hmm. et je ne veux pas m'attarder sur quelqu'un qui a nag du wax ak man ma koy waxal koy gis nga gëm hmm? pour Khalifa Ababakar Sall franchement pour dire vrai hmm. moi, que suis nee café ak ataaya bu mu ci am na <laughs> mais je ah, pense que ni Hmm. Khalifa va subir la foudre des patriotes. Hmm. Ça, sanctionné. Ça, c'est sûr. Il sera sanctionné partout par les patriotes. Hmm. Ah, bien sûr. Et là, fois, vous, les patriotes, je leur tends la main, leur disant que comme j'ai le doyen des candidats, qui certainement fera un seul mandat, et dans son programme, il a terminé par réconcilier les Sénégalais. Je sais qu'au soir du 25 février 2024, si Idrissa Seck sera élu président du Sénégal, il hmm. va réconcilier les Sénégalais. Et je pense que la première équation à résoudre en ce moment, hmm. c'est la réintégration de Ousmane Sonko, qui sera jeune hmm. pour venir prendre après le pouvoir en 2029. Très bien, voilà. Euh, l'avenir nous en dira plus. Donc... En tout cas, c'est ça mon souhait. Voilà. Donc les patriotes, aujourd'hui, ont oh, ah, intérêt. Et, et, non, non je, leur, mais je leur dis la réalité. Hmm. Ça, c'est aujourd'hui, c'est la réalité qui s'impose. Mais yow nga def leen clin d'œil te Idrissa Seck lu ne wax na Ousmane Sonko nag nañu waxante dëgg nag. Idrissa Seck dafa jël Ousmane Sonko Idrissa Seck bu bëggoon électorat Ousmane Sonko. dafa am ni mu war a wax ak moom kanam Cheikh. Idrissa Seck hmm? Idrissa Seck bu ko Ousmane Sonko déggaloon déglu hmm. il n'en serait pas là aujourd'hui mais je dis aux patriotes c'est une situation qui s'impose. s'ils veulent aujourd'hui continuer leur aventure avec Ousmane Sonko c'est ça la réalité il faut que nous, ki mais je pense que les patriotes aujourd'hui ils euh, élisent un Déthié ou bien un docteur Abdourahmane Diouf mais ils sont encore jeunes ces jeunes voudront d'un second mandat et Ousmane Sonko devra attendre encore 10 ans très bien donc voilà li ci <laughs> li ci kanam raw li Cheikh euh, li ñu mayoon ci waxtu pratiquement jeex na ci seen émission euh, sans détour amul na boo ñu amoon mbégte lool dalal la Cheikh Ahmed Tidiane Ndoye président euh, du mouvement pour le renouveau démocratique donc nga teg sa mouvement boo xam ne bu bees la comme ni nga ko waxee yaa ngi def maillage bi di dem partout yemoo Thiès kese wax nga léegi ne sax yaa ngi dëjati waa APR di leen indi ngir ngeen jàppale Idrissa Seck loolu yëpp ci élection yi dina leer en tout cas amoon nañu mbégte lool ngir dalal la fii euh, ci Prestige Thiès FM 95.5 ñu fàttali une émission bi euh, chaque dimanche lañ koy amal à partir de 11h di ngeen ko mën am tamit fi nga modi YouTube ou Prestige à partir de 21h euh, ci dimanche bi Cheikh. merci beaucoup Isidore c'est toujours un plaisir. Mhm. de partager avec vous un plateau. Mhm. et di la sant di la gërëm di gërëm ñep à commencer par nuyu sumay wajur bu baax a baax a baax nuyu suma soxna. Mhm. Euh, di gërëm waa mouvement MRD je pense que ni liggéey bi yëpp ñoom la ñoom bu Baldé Ndioba Sow Mamadou Ka mhm. Rokhaya toutes ces femmes aujourd'hui ñoom méngéey mhm. ñoom ñëpp ñu def bloc jiital la mhm. te gënoo leen ëppale woo leen dara mais aussi euh, di waxaat sénégalais yi particulièrement thiessois yi chance bi ñu am cette fois-ci pour voir un fils de Thiès à la tête de la magistrature suprême di nuyuwaat suma mag suma xarit euh, Abdoulaye Fall Bailaye, son patron aussi dans le cadre du travail mhm. mais aussi et surtout mon ami et frère le ministre Yankhoba Diattara mhm. voilà après un long séjour en Europe il est revenu hier soir mhm. et je pense aujourd'hui qu'à partir de lundi. Le travail continue. Ah bien sûr, le travail a déjà démarré donc <laughs> on va continuer le travail. jërëjëf di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu borom kër gi suma grand frère suma xarit borom école ya Fanta. <laughs> Pape ya <laughs> voilà mu nekkoon sen émission sans détour euh ñuy gërëm bu baax baax ñi nga xam ñoo ñu jàppale ngir ñu mën leen dëgtal émission bi notamment suñu technicien euh, akim ñu fàttali ne émission bi Ocaali mo leen ko doon may à dimanche prochain.